waxuma ne ko bu fi kenn jaar. Abdou Aziz Guèye. comprendre nga. léegi nag bu ñu jugee ba non Abdou Aziz wóoru ko ni Abdou Aziz Guèye xam naa ko. xam na Aziz Guèye xam naa ko baax a baax. Père ah. Aziz xam naa ko. Abdou Aziz. yàlla mi dara tëwul nag bon kon ñu dem foofu nag maanaam mais yàgg nañu ñun ci porte bi def nañ. fi kon yow nga foofu yàgg nga fa. waaye def naa fa lépp une heure de temps sax def naa fa lépp une heure de temps léegi comme ñun dañ ñoo jox heure heure boo xamante ne ñun waruñu ko waruñ dañ ko war a respecté te mbër bi dañ làmb ji dafa war a teel a jeex mais mbër bi bu ñëwee nañ ko bàyyi mu dem. Mhm. donc léegi après ñu téye ñu fi lu yàgg man fi ma jaar ni moom aw ma yaakaar pour jaar parce que tafaatin fa la jaar. Mhm. fa la jaar ñun ñu ñëw ñu ñu buntu xatal ma ne ah mais lan moo xew. est que dafa ñu ko entrée euh, commune entrée boo xamante comprendre mais man fi ma jaar ni fi ma jaar ni man maa fa jaar la sama bopp. ci lañ la daggee un million jéggi miir. faa <laughs> jaare sama bopp daal. Hmm. maa fa jaare sama bopp. mais kenn wax kenn du tettal du dara man maa am yëg-yëg rek parce que boobu énervé am naa lu ma ba may yëg fii. Hmm. am naa lu ma naqari am naa lu ma metti parce que yaa ngi war a dugg mbër bu war a bëri mu war a nekk une très bonne condition. Hmm. nekk ci jàmm war a dem à l'aise amateurs yëpp di ko xaar. kon CNG war naa motuwaay boo xamante ne mbër bi buy dugg mais dara waru koo xoos. Mm. parce que bu ko daree xoosee mais li mu bëgg ci géew bi du ko am. Mm. te lamb ji mën naa yàqu. te lamb ji mën naa yàqu léegi nag après ma xonal rek après jaar tëf loolu kese la. Mm. mais ba ah. porte bële lañ la tere mais porte centrale bi nga xam ne fa la mbëri di war a jaar est-ce que dañ ne la doo fa jaar tamit. waaw dégg li ma wax joxe nañ clé bañ fa dugg. porte yi ñëw ñu duñ fa jàll. nga dem fa ah yow jëmi yi ñoo bañ nga jaar fa nga njëkkee gaa yi joxe ordre. gaa yi joxe boo ko joxul. Ah, ah, mais waa ñu dégg ma dégg la keroog ci face à nga dem ba ni sa loolu moom la ñu daggee nit ñi ay sàcc la ñu. Ah, est-ce que baatu mais xam nga nit tamit léeg-léeg. doo ko retiré non xam nga da ngay euh, sàcc sax kenn du ko wax nit. donte ne sàcc mais léeg <laughs> déglu ma ne sàcc la loolu. non man en fait wax naa ko te man ragaluma ne maa ko wax. Mhm. mais xëy na peut être ni ma ko waxee sama xol tàng na ma waxee ko noonu. mais ñi fa nekk aussi tamit su kilifa lañu. waxee naa ko ci anam boo xam ne waruma woon mënoon ko wax beneen anam bu bokk ak ni ma ko waxee. parce que aussi tamit bëri dafa metti ba gars yi nga bàyyi sa njaboot bàyyi sa lépp mais xam nga tey bu fekkee ni tey da nga ñëw ci làmb loo def ñu dagg la dafa metti aussi. du dëgg nañ ko waxante rek te yàlla tax loo def boo manqué sa heure. et puis yow li nga dagg bariwul. man dañ ma yàgg a du question nañ ma dagg bariwul de. xanaa jalam dafa am ci diggante bi. non dialogue amul. non non non man buur man. non dialogue amul da bàyyi ko. dialogue am na du ah, question dialogue parce que amul nit mën na loo xamante ne topp xolam wax <laughs> nga am ay kilifa nga dem ñu la ah lii nga def nii waroo ko def. Mm. da ngay nangu ne lii nga def waroo ko def. dëgg la mais du question ay jaroo ko. man mi ah. keroog ba nga ma musee laaj ci affaire Casamance. waaw mooy la Casamance xamatuma fi lu bëri. pourtant am na ñu bëri di def ay vidéo mere ma ci lu wax. lu ne yekk nan la te loolu li ma jur ak li ma apporté tey dama la ciy sant ndax question bi ma laaj. Hmm? trouvé na laa xamante ne tey man trouvé mu ko